internet bu Torino Media TV dégg nañu bu baax kontaan nañ leen bu baax a baax ci topp bi nga xam ni booba léegi yéen ko topp tey nag ñi ngi fi nga xam ne mooy Maristes la nekk tey ci benn euh, ci benn nekk tey alors ay jeunes la ñoo porté wu joxe ay ndogu donc ki ñu taxawoon nag moom dafa bokk ci association bi Fall maa ngi lay nuyu ziar la delloo ziar bu wér maa am nga jàmm am naa jàmm bu baax tur bi naka la tey euh, ngeen nekk ay jeunes. Mhm. boole seen ñaar dërëm seen ñetti ñetti dërëm. Mhm. donc euh, jël ay ndog di ko yónni ci hôpital bi. mu nekk loo xam ne lu baax la. Mhm. mën nañu xam bi mooy seen ñaata édition. bi mooy suñu deuxième édition. mooy deuxième bi. waaw ko defee. première bi si kii kii. si. si hôpital Fann. d' accord alors euh, bii nekk seen deuxième seen deuxième édition. alors mën nañu xam association bi nu mu tudd. Kosa Nostra. Kosa Nostra. lu waral ngeen tuddee ko loolu. waaw pour jàppalante. pour jàppalante. waaw d' moo waral si ginnaaw kii loxo yi. waaw yaa ngi koy gis jàppoo bi jàppoo waaw ñëpp doon benn. parce que jamono jii nii. Mm-hmm. suñu société bi il faut ñu jàppale néew di doole. surtout surtout surtout surtout loolu noonu. Mm-hmm. moo tax ñun ñu boole association bi. Mm-hmm. jàppante loxo ak loxo. ñu tuddee ko Cosa Nostra. ba amoon benn message boo xam ne da koy lancé jeunes yi. ban message lay lay doon. benn message bu may lancé jeunes yi ah ñu gën si jàpp rek mhm. si weeru koor bi moom lii moom am na baax na torop si mhm. nit quoi mhm. ngay jox ay néeru doole wala ñoo xamante ne nii nii euh, amuñu nga leen di jox loolu noonu sa baax sa sa tiyaaba yi day mën a ak yooyu noonu dëgg la alors bëgg naa ci yow bu a baax dëgg la dëgg dafa rafet suñu président bi <laughs> merci beaucoup. alors tey nag nga gise tey li nga xam ne yéen def def ngeen ko mu ne association boo xam ne ngeen joxe ndogu mu nekk loo xam ni barkeel la mu nekk loo xam ne tiyaaba la. je suis kontaan rek. Uh-huh. kese. <laughs> tey <laughs> tey ay loolu tey benn benn benn wax boo xam ne da nga koy wax sa waa mouvement ban wax lay lay doon ban kàddu nga leen dénk. ñu jàppalante suñu biir. surtout kontaan naa ci yow. aca bëgg ci yow. jaajëf ah, <laughs> bu baax a baax ba tey li ñu ko waxee tey ñu ngi fi xam ne mooy hôpital euh, Maris la ñu nekk tey soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay si jàmm maa ngi si la. awo awa tey ngeen def euh, mu ngeen def benn mouvement benn association. Mhm. donc di joxe fii ndogu donc mën nañ xam idée bi fan la jógee.

ñaan lu gën a kawe toolu feneen fu dul fu kawe suñu njort mm. quoi alors du ma teel yàgg parce que yéen a ngi koy demaat feneen pour joxawaat ndogu donc kon dama leen bàyyi nga dem li wax big naa ci bu baax a merci beaucoup